ña wuteeg moom ñoo moom yooya su ko defee mu xàmmee ko bu baax xam ne feet yu wuteeg feetam ak di date ci taarix yu wuteeg date bi lislaam loolee njumte ci dundug jullit mi bokk jullit ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moom dong mooy kii wéet moom bindee bokkut leen ak kenn moom moo ñu teddalee diiney lislaam ñun jullit mu gërëmal ñu diina jooju mu nekk suñu diina joo xam diina nekk yoon woo xam ne daf ñuy yeggale ci kërug jàmm ga di aljanna yàlla nañ bokk ca ñi ci ñu ngi seede ne amul benn buur bu war a jaamu ci dëgg ku yàlla yàlla dong bokkut ak kenn lenn bokkut ak kenn lenn ci mborome gi mborome lim bind waaye bokkut ak kenn walla lenn ci wéet guñu wéet gum wéet ci ñor koo jaamu taw duñ ko bokkaleek dara waaye bokkute kenn ci ay turam yu rafet ak ay melokaanam yu mag ñu ngi seede ne Muhammad jaamama yónnentam la yónnent boobu nga xam ne moom moo moyta ne ko loo xeetam di yahu ñu bañ a niru nirulu yahud yi ak nasaraan ak ñi nga xam ne dañuy jaamu ay xirim yal na yàlla dolli ci yónnent boobu xéewal ak ay saxaabam yu baax yu tedd yooyu le li fekk yàllaa ngi euh, guddeeg bëccëg ñu ngi wut ànd mbokk jullit ñi ñun doomu aadama yi ñun jullit ñi nañu ragal yàlla di ko sant bu baax ci lim ñu jagleel ci ay ngëneel yu màgg jox ñu diina ju jub jox ñu diine ju mat jox ñu xéwal mat mottali xéwalam ci ñun mu dig ñu ñu bokk ca ñay wëttu diina jooju moom sax dana ko sàmm moom ba dara du ca la waaye nañ bokk ca ñi koy sàmm ci soppeeku ak changé ci soppeeku ak changé ak wëttee yàlla subhaana taala wax na ci suuratu maayida mu ne ca xajug yonent bi salaa sallam caajam gu xajatu widaa googule aaya bu fa la wàccoon ca ngoonug aljanna ngoonug aljumma suñu borom ne tey naagu na ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ci seen diine ji di diine lislaam te yéen dama sala sam nekkoon sa bopp bu leen leen ragal yàlla mooy bu leen ragal ragal leen ma tey matal naa ci yéen sama diina mottali ci yéen sama xéewal gërëmal leen lislaam muy seen religion muy seen diine waaye boobu bu ñu demee maay dañ ko fekk mbokk jurit ñi Ah, yàlla daf ñoo dénk conseil ñu ñu jàpp mooy ci diine lislaam li fekk ñu ngi dund maa dum na ala qayd alxaya li fekk ñu ngi suñu bakkan yii ñu ngi noyyi dañoo war a jàpp ci lislaam façon jàppin woo xam ne day mel ni ku ne ci teen ñu yor la goj boo xam ne boo jàppee bu dëgërut boo rëccee da ngay xal ko gis nga kooku na muy def mooy ngoy noonu lañu war a def ci diine lislaam li fekk ñu ngi dund loolu mooy wareefu bépp jullit bokk jullit ñi yàlla mu ne ey yéen ñi ma gëm na ngeen ma ragal dëggi-dëggi ragal na ngeen fexe meg mukk bu leen bu ngeen di faatu na fekk seen njëbbulu ci man yàlla mat sëkk bañ a manqué mbokk jullit ñi jullit wartam sikk sàkk ne diine lislaam mooy yoonu mucc àllaaxira yàlla mu ne képp ku sàkkooti beneen diine bu du diine lislaam yàlla mooy duma ko ko nangul te ayumal xiyaam day perte loolu ba tey bu ñu jëmee suuratu Ali Imran dañ koo fekk ñun jaamu yàlla dana war ci bépp jullit rawatina jullit ñi ñëpp ñuy teddee ci diine lislaam xam ne diine ju mat la diiney tedd nga la diine joo xam ne day fare kaw waaye dara du ko faree kaw ña ca nekk ñooy faree kaw waaye dara du leen faree kaw diine ji di diine l'islam di xeetu seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ëllëg ñom ñoy seede nit ñi ci kanam yàlla subhanahu wa taala ci kanam yeneen ti yëpp suñu borom neena yeen yéen jullit ñi yéenay faré kaw waye ci sar bu fekkee seen gëm wër yàlla waxaat ne na ngeen xam ne defal naa leen yéen ngeen nekk benn xeet nation boo xam ne bu diggu doomu ngeen seen dara ëpp lépp da ngeen nekk à millier ngir ngeen nekk ëllëg yomal xiyaam di seede nit ñi seen yeneen bi nekk kuy seede ëllëg ya xiyaam xeetam ak xeet yi ko jiitu woon mbokk képp ku sàkkooti tedd nga wala ak yëkkatiku ci lu dul lislaam suñu borom suufeel ko mbokk jullit ñi Omar ibnul Xataab daan na wax ni jamono ji mu nekkee njiitu jullit ñi nee na ñun de ñooy xeetu tedd nga goo xam ne yàlla moo ñu teddalee moo ñu teraangalee lislaam hey buñ sàkkooti feneen tedd nga waa wala leneen tedd nga fu fudul lislaam suñu borom ñu suufeel ak a baax xéewalug diiney lislaam diiney tedd nga diiney teraanga diiney yëkkatiku àdduna ak àllaxira parce que diine la joo xam ne ju mat la ka ca jàpp ka ca mooy waaye kay matee ca diina mooy ka jàpp ca diina ci mboolem wàll diina am ci dund bi yëpp ci ni ñuy organiser yooyu yëpp mu jàppee noonu diinam su ko defee ngëneel mboolem ngëneel yi amul lu dul lislaam ñoo na soññ ci julit ñi mboolem yu suufe yi lislaam ñoo na moytandikuloo ko xeet wi boo ñëwee ci wàllu pas-pas la ca lislaam jàngale moo gën a mat ci wàllu jaamu yàlla noonu ci wàllu politique noonu ci wàllu jëflante noonu ci wàllu yar noonu ci wàllu defar jikko noonu diine lislaam ji mooy diine ji yéwén baax jag ci mboolem mbindeef ci bépp jamono ak bépp barab mbokk jullit ñi diine jooju mooy diine nga xam ne doomu aadama yi niñ ko aajowoo raw na niñ aajowoo lekk ak naan kon mbokk jullit ni ñu ngi ci feet yoo xam ne ñun julli ñëpp nañ ci bàyyi xel xam ne ñun diine ñu jullit yi feet bi ñu am ci lislaam mooy feetu korite ak feetu tabaski te feet ci lislaam jaamu yàlla boo xoolee feetu korite dañoo génnee ci jaamu yàlla bu mag di weeru feetu tabaski it ñu génnee ci jaamu yàlla bu mag ponk bu rëy moom ci ponk lislaam yi di ponk bu juróomeel ba di aj mag su ko defee feet nag ci lislaam jaamu yàlla la yenent bi la waxoon ci feet ay ayyaamul akli wa shurbi wa zikrillah fani lekk la ak naan ak tudd yàlla su ko defee jullit moom boo xamee feetam na ca yem moytu feet yi nga xam ne moom ñam bokkut ak diine ñoom la ñuy feetu su ko defee mu moytu ko euh, bañ cee yaatalal njaboot gi bañ yëg ne lii feet la te xamuñ feet bi li ko waral waaye wareef sax mooy mu waral leen wax leen waxtaan ak ñoom def communication ak ñoom toog ak ñoom neen yéen seen feet lii la ak lii ci lislaam feet bii ngeen di dégg kat leen ci kon yéen waru leen dem di taal pétard di tànqal seen dëkkandoor yi am na ñu feebar am na nangam am na nangam te julli du lor mbokk ma yooyu yëpp war nañ cee biile njaboot gi communiquer ak ñoom wax ak ñoom su ko defee ñoom duñu bokk ci yooyu bokk jullit ñi euh, feet bii ñuy feetu mooy feet bi nga xam ne bokk na ci gën a naqari yàlla ci liñ waxal yàlla mooy yàlla dafa am doom loolu bañ ko waxee yàlla mooy takaadu samaawaati tafattarna wa tanshaqul ard وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سنبرا وخادنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم kon bokku jullit ñi ñun jullit bokkuñ ci yooyu buñ ci bokk buñ ci fere dara buñ ci jënd sax benn kadda su ndaw luñ koy xeeb-xeeb dantu cent francs lay jar buñ ko jënd jox ko suñ njaboot gis nga boo ko defee bokk nga ca mbir ma te yént bi nee na man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ku niru niru lu aw nit ca ñoom nga bokk te ñun nag dañu am fuñ bokk ba pare muy ay jullit lañ rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina adaba annar rabbana atina ma waadtana ala rusulik wala tuxzina yowma alqiyama innaka la tuxlifu almiaad اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب بنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا متمسكين بدينك يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين واهلك الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أيدهم اللهم انصرهم اللهم عليك باليهود في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين هذا وبالله التوفيق اللهم صل وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله